Nous association euh, chaque année euh, di campagne médicale ci ñi nga hôpitaux yi euh, dañu démarré suñu campagne médicale 2023 bi ci ñun nañu drame mais Nous aussi difficulté yi nga hôpitaux

Euh, di leen wax ne dinañ dem feneen mais di wax ne wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci accueil bi ñu accueillir fii. Ah, nii fii ngeen ko njëkkee ndax mën nga ñu defal rek estimation ci wayu ba waaw xam nga euh, l'année dernière 2022 Touba la ñu njëkkee euh, moo tax tey ñu ñëw fii on a un budget annuel. L'année dernière 67 millions la ñu amoon 67 millions yooyu c'est le montant total de tout le tout le budget médical ren on a 210 millions ce n'est pas de l'argent euh, montant matériel bi ñu jox la. Euh, li ñu jox Tivaouane dinañ dem yeneen région def ko fa dinañ dem aussi ci infirmerie yi nekk ci biir euh, kaso yi nga xam ne foofu la nit ñi nekk donc c'est le montant de global de toute l'action médicale euh, ñu fàttali ne trois conteneurs la ñu wàccee Sénégal ren yeneen ñaar yi xam nañ ne suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Turquie coono bi ñu am yeneen ñaar yi delloo nañ ko donc montant global bi ça globalise li ñu indi Tivaouane yi ñuy yóbbu feneen ak li nga xam ne moom la ñu yóbbu Turquie man di ko préciser encore une fois. Pourquoi le choix de Tivaouane? Euh, Tivaouane je l'ai dit euh, ñun dañuy dem par région la ñuy dem suñu yéene en tant que association bi nga xam ne dañuy xeex ak ak yelleefu jigéen on fait le tour de toutes les régions du Sénégal te hôpital régional bi moom moo nekk Thiès loolu moo tax mu ñëw fii euh, am na ñu fi ñëwoon semaine dernier nee dañuy tournée économique mais ba économie ak culture balaa moo am santé mooy priorité te xam nañ ne fii nit ñi soxla nañ ko moo tax ñu ñëw fii. voilà merci may leen di nuyu di dalal waa APROFEV en l'occurrence Gabriel di remercier toute son équipe parce que ils ont bien coordonné parce que nous avons envoyé liste bi ñu ça nous intéresse nous avons accepter donc ça c'est important Nous avons accepter aussi entre temps ça, pour encore parce que nous avons très bon état euh, matelas yi euh, gis nga maintenancier bi ni muy dawee pour mu am am yenen affaires yu si yo xamni si gis nako ci biir mu intéressé ko donc ça veut dire que c'est du matériel utile que nous allons utiliser et lolu rek moy jariñ aussi koy dimbalé ni dang koy dimbalé lo xam daf koy utiliser daf koy jariñ té mom gis na ni lim ñu indil jariñ nañ donc ñu leen ci santaat di di gërëm bu baax a baax